عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu sëriñ bi Cheikh Hamada nuyoo ziyaare ak ijlaal taadim tabarruk di nuyu saada al ajlaa yi nga xam ne ñu ngi ci place bi ñëw ànd ak moom rakam Cheikh Moussa Khalifa ak Cheikh Tidiane mu Cheikh Xaaj Mouhamed Zeynabou rakam Seydi Cheikh Arabi ak seen i doom Ibrahim nga Cheikh Amadou Amin di nuyu njabooti Cheikh Mouhamed Nazir ak ne ñoom it ñëw nañu ak teraanga ji ñëwee gan yi jugee Mauritanie Cheikh Baye ak mbooloo ñu am na si Abdoulaye Dia ma xam ne bi di nuyu defee di leen jaajëfal di leen ci ñëw bi ñëw ci bés bi nga xam ne bés si ndollal la ci diine ji waaye bés si ndollal la tim ci di sant yàlla it ci jéegu yi nga xam ne jéegu nañ ko ci gox bi muy njaayeen di fii kër Assane nga xam ne benn bu ci nekk pays la ci pays Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu di rafetlu jéegu boobu nga xam ne tàmbali la di wax ne it la ca des mu ci kanam ndax maa ngi wax léegi ne mel na ni suñu réew yi dox bi dafay yéex ndax yoon wi man seetlu naa ne fanweeri at ñu ngi ciy jaar na meloon ba léegi la mel kon nag euh, yaakaar nañ ne soppeeku dana ci am ndax daaw ci heure bii groupe lañ doon taal ca ren da ngay tàj sa mu tàkk euh, waaye ñu ngi fàttali ne niñ soxlaa lii noonu lañ soxlaa la ca des euh, ñu ngi ñaan nag ñaan yoo xam ne. sëriñ bi ñëwee dana ko feddali ñaanal suñu njiiti réew mooy ñaanal suñu bopp ndax dañoo wax ne boo duggee ci oto di ñaanal mu mucc yow yàlla bu mucc ñu ngi koy ñaanal yàlla teg ko ci yoon bi nga xam ne ci la gént Sénégal yi di dëggu yàlla tàggat ko ba mën a def li nga xam ne moom lañ séntu ci moom ba fal ko ba pare xalaat euh, ñu ngi ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom ci liggéey bi waaye ñu ngi ñaan jàmm ci Sénégal lépp euh, ay magam ak ndaw waaye di ñaan jàmm ci tund yi ñu ngi suñ seen mbokku Cheikh euh, Ibrahima Mawal Hadj Ousmane ak sa Serigne Babacar Konte di. xaadim te xaadim yi mbooleem jamono si bàyyi nga xam ne ñëw nañ ceew di ndokkeel ñëpp waaye di ndokkeel waa Kër Asan ci bis bii nga xam ne bés ziyaara la yàlla te xam nañ ne ñi ko sos ci ndigal lañ ko sosee moo tax yàlla yombal ko amut tànk gannaaw waxtu nekk ci kanam la jëm loolu nag ko waral mooy ne liggéey bi yàllaa ko moom yàlla la ñu yàlla siyaare ci yàlla soxlootuñ fu ñuy waxee ndax baax na wala baaxut ndax nit ñi gën nañoo xelu gën nañoo xeewuti rawatina ay taalibe bàyyi ñoom ñoom ñuy xeew lañ mooy ñi nga xam ne ñooy ñuy seet rek sëriñ bu leen mën a jëriñ teese leen jëme leen ci yoon ndax sëriñ la boo xam ne dafa ee ay taalibeem xeew boo xam ne Euh, ku ko dégg ak ku ko gis daa xam ne kii dëgg-dëgg sëriñ la ndax yal na leen air boo xam ne kii wax bu doon sëriñ rek bu paree rek ñu moom ne ko sëriñ jàmm jàmm waaye ñu ngi sant yàlla ci nekk ay taalibe loolu du suñu farlu moo ñu ko may waaye baax yàlla la ci ñun moo ñu baaxee. def nit ñi ay jullit boole ñu ci ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam teg ñi nag boole ñoom ki nga xam ne def ñi tax ñi mën a garanti li tax ummati muhammadin am ngëneel li nga xam ne moom lañ am ndax alquran dafa wax ne kuntum xayra ummati uxrijat linnaas taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah bàyyi li nga yem yëpp ci taalibe yi mooy saxal gëm yàlla ci ñoom te mu koy saxalee ànd ak ñoom ci digle lu baax ak tere lu bon li nga xam ne dëgg-dëgg moom mooy ragal yàlla li nga xam ne bu ko jaam bi terexoo yiñ ko tere ah, toggoo yiñ ko digal bu boobaa am na ragal yàlla gi nga xam ne. moom ak imaan rek ñoo mën a ànd jaam bi bokk ci sàppe yi wàllu yàlla yi bokk ci sàppe yi xarit yàlla te Baay jàngale na ba pour xamale ne moom li ko tax a jug du lenn lu may defar xol yi te xol yi boo déggee xol defaru na mooy borom gëm na moo tax léeg nga dégg ne ku yox di ku saay saay la waaye xol bu la am nag waaw nit mën naa lewet nit mën naa tawe waaye xol bu rafet mooy xol boo xam ne borom xol bi gëm yàlla la ci xol boobu mooy xol bu rafet mooy xol bi nga xam ne leer daf cee nekk mooy xol bi nga xam ne borom xeeyoon na nekk xarit yàlla waaye xeeyoon dem ba yàlla mën a dëkkoog xolam la wax Cheikh Xalis ja nee na aussi ne bu ma yundoo suma xolab jaam gisuma ci bëgg leneen lu may man ma dëkkoo xol boobu balaa jaam bi mën a àgg nag ci am xol boo xam ne dëkkoo wutal leneen lu ma yàlla tabaraka wa taala mooy mu am dëgg-dëgg imaan bi nga xam ne nii xajoo wutal dara te Cheikh Ibrahima radiallahu anhu bëgg bëggam lépp loolu la mun na leetal bu muy wax

moo tax Cheikh Ibrahima wax ne Abdullah ibn al-Haj nee na ma min al awraad tijaaniyati chammu raayahati al haqiqati muhammadiyati bi lépp li mu ci jublu mu ne jubluwaay bi yëpp mooy jaam bi mën a xeeñtu xeetak dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetak dëgg-dëgg bi jaam bi mënu koo xeeñtu lu may xam na xeetak dëgg-dëgg wéetaay ak yàlla mu door a xam xeetak dëgg nañu ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bu boobaa da nga xam da nga xam melo xam luy tur xam luy eh, kàll yi nga xam ne gaa yaa koy wax waaye waa ji jëlee ci tegtal rek ne bu li may wax borom bu feeñee xale yi nañ ci wax jigéen ñi dañ cee wax ca teen ba te loolu moom la ñuy bàyyi jàng wa qultu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu l ilahu fa faada min nii sirruhu fala ahad yaxsuduni ma arab allah maa wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah mbooti baat bi ballee ci mbooti baat bi ballee ci ba kenn duma jublu lu may xam na yàlla mi nga xam ne mooy ki ñu war a nga yar gaaw foofu la leen yóbbu mu ne maa arafa moom doo ko fekk doo ko fekk doo ko fekk yàlla moom du yàlla te moom tim ootewul yàlla koo amit tur ma dafa laajoon bàyyi ne ko a yaa yàlla te loolu yëpp du tax mu laaj ko ko mooy gis lu mu am waaw lu ko jaaxal bu ñëwee ci bàyyi bu koy bu ciy def mu mu sotti. balaa sax moom ci gaana boo xam ne luñ fa def mu lakk luñ fa def mu lakk kenn mënu laa taxawal dara ba jëm jamono bàyyi ñëw gaana mu yóbbu ko fa bàyyi dem fa benn ànd ak ñu muy defal mi def boobu la gëj a lu fay dara di yàqoo yu mel noonu nag buñ ci gisee yu bëri mu ci mu ne bàyyi xanaa yow yàlla yàlla bàyyi ak lépp jaamam la jaamam la jaamam mu wax soxlaam yépp ci jaam yi ci mooy mu àggale leen ci sëful abudiyya si jaay tabaaraka wa taala mu yóbbu leen ba nekk ay jaam yàlla moo tax bu waxee ne yàq waxul jublu boppam maa arafa allah samat pour nga xam ne kenn doo jublu mooy yàlla nga xam ne mooy ki ñu jublu ndax moom jubluwul ko mais yàlla lañ jublu ci ku ñëw ci moom boo jubloo leneen dana la ne man du maay jubluwaay bi yàlla ngay ut ci man ndax maqaama bi nu mën a dox fekkee yow leneen nga soxla yow loolu mooy sa cër moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu dafa waxoon benn wax pour firil nii nii man man man yuhibbuni falyuhibbuni lillah wa man ahabbani li gharat fa ana aamilun salihan ku may bëgg dama bëgg ngir yàlla ku may bëgg nag ngir sa bëgg-bëgg bakkan man kenn rek laa ci amati yi waaye euh, taalibam ne ko marhaban bil aami sëf xam ne Cheikh Tidiane Serigne Mouhamed Al Ghali ne ko marhaban bil aami sëf mooy ne loolu la bëtu la bëtu ñu doon ñu réer ndax euh, waliyu xutbu euh, yuraa aaliman ka jaahilan xam naa xam naa bu ko defee ki xam ne cëram mooy waajal rek moom mën naa gis daf laa ki nga xam ne nag leneen mooy cëram leneen lay gis. am na koo xam ne ci mag ñi wax ne bu muy ñëw ci bàyyi di ko laaj addiya ba mu dee see ci bàyyi ko jàpp ci moom ki gis ak ki mu gis loolu la. الصغار والكبار تقرب حبيب المذهب سواء الصغار و والكبار سواء الصعلوك والسلطان ñëpp ci am xale yeeg mag ñeeg góor ñeeg jigéen ñeeg ñëpp bu jubluwaay bi bu jubluwaay bi wéree rek jaam bi jaam bi àgg ci yàlla loolu la ko yàlla defal loolu nag ma ne laytaay bi mooy iman bi daay tabaraka wa taala bi nga xam ne moom yenn toog bi nga xam ne moo ñuy garanté ñi des ci xayriyatu ummati muhammadin bi mu ngi ci ngëneel mu ngi aju rek ci amr bil ma'ruf wa ci jotaay yooyu la ndax jotaay amr bil ma'ruf la ak nahyi anil munkar te ñi koy sos mooy ñi nga xam ne nii dañoo gëm yàlla te xarat bi yëpp pour nga am ci noonu sax gëm lu may da gëm yàlla tabaaraka wa taala moo tax ba ko Cheikhaani laaj mas la euh, leetar boo xam ne daf doon sant yàlla te wax bàyyi am na ay jaam yoo xam ne ay taalibe yoo xam ne àgg nañ ci yàlla bi maanaam am nañ jeex ci yàlla bàyyi tontu ko leetar wax ne maa ngi sant yàlla ci doon lekk gëm yàlla ci xeeti yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant yàlla ci doon la gëm yàlla ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nga xam mooy nga xam ne maanaam euh, jeex yàlla du daara du may pour nga gëm yàlla te bindal na ko feneen al murid bi yëf laa fi jaahi li yatimma iimaanuhu jaam bi dafay jeex yàlla pour gëm yàlla mat moo tax bàyyi ne gëmul yàlla sa jaamu yàlla du sotti ndax yàlla dafa wax ne abdullah bihi shay'an jaamu leen yàlla te du leen ko bokkaale dara te loolu mu ne jaam bi mënu koo am lu may dafa duggee si buntab fanaaw waaye euh, fanaaw boo xam ne ci dafay ànd ak des des siyaar jox teggi nii lu nekk mu jox ko wàccuwaayam lu nekk mu wàccee ko wàccuwaay bi mu ko war a wàccee ndax bu loolu amul rek euh, dund bi dafay dafay yàq bu ñu wàccee lu nekk wàccuwaayam rek dund waaye lu nekk rek dañ ko teg teguwaayam loolu mooy xam dëgg ba pare jox borom xaq bu nekk xaqam. kon sëriñ bi wax ne li ma bëgg bëggal ko yi mooy xol yi nekk xol ñu jeex ci ba fàtte ba ba def lekk leneen xol yu ci xam yàlla. xool yi sax ci ci fuglu yàlla xool yi sax ci liggéeyal yàlla ànd ak di ko ci kaw mbëggeel ak cant di ko def ci kaw mbëggeel ak cant ndax jaam bi bu bay xamal ko luy résultat am ci du tax mu bàyyi jëf yu yi nga xam ne moom loolu mooy sant mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax afala akunu abdan te jotaay bu mel ni ci jotaay sant yàlla la ndax li ngay dundale ngir yàlla wa taala loolu yaa def pour tënk sa xéewal gi nga xam ne moom la la may ndax xéewal dara du ko lu may sant ko boo amoon sa gàtt boo xam ne da ngaa bay mu dàngar da nga koy da nga koy tënk xéewal it boo bayee mu dàngar da nga koy tënk mu dem bay dem si te sayyidatuna Aïcha dafa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ahsinu jiwaara ni'amillah na ngeen rafetal nu ngeen di dëkkee xéewal yàlla yi dem néew na buñ demee jël siyaat liggéey dund dundee liggéey ngir yàlla sa mustawa liggéey àgg na ci génn na aada waaye dugg na ci jaamu yàlla ndax yaa ngi liggéey ngir yàlla ko santaane boobaa amul perte masalan kuy bay ngir yàlla santaane liggéey sa sa tool boobu noonu mun ta booy mun ta yàqu dañ ne bàyyi dafa am toolam boo xam ne ñu ne day ñëw ne ko bàyyi tool ba yàqu na mu ne man sama tool bu yàqu man ba ma jiyee rek laa góob sax ku koy xam ne da ngay ji ngir yàlla ba nga jiyee rek góob mu ne sama tool bu yàqu boobu Moustapha la bu caari ngi àgg moo tax ba muy wax ne da ngay liggéey mu ne liggéey leen ngir yàlla ku àgg foofu mu ne ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga mooy jàngal ne innamal a'maalu binniyaati jëf yi yëpp ci yéene waaye am na loo xam ne lislaam jàngal nañu ne nit dana ko jëf dana ci am yoon te du ko yéene loolu bay ci bunt yi la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na waxtu boo xamee ne da ngaa bay sa tool picc ñëw lekk ci dara wala ngelaw ñëw daana ci dara yàlla fay la ko te benn borom tool néew na boo xam ne borom tool boo xam ne dafa ji pour ngeeru li daane borom tool boo xam ne dafa ji pour picc yi rek mu déedéet ndax bu doon loolu doo romb foofu ay xoral ñoom ñëpp ngi def ay xoral ci tool yi pour picc yi duñ laal waaye bu picc yi laalee si yàlla fay yàlla fay la ko loolu euh, barke liggéeyi tool yi dafay xamale loolu comme niñ ci ci tool bi lañ nekk ñi ñi ñi wax waxi tool ma ne jaam bi dana ci baax te sax kenn wu ne kon nga liggéey jaamu yàlla nga ba demee Ibadan tëdd ba mu fa def gannaaw bu mu dénkaanee julee or topp yàlla rafetal topp gi ba nag ci baax ci mundee bi am njëriñ ci mundee bi dafa delluwaat ne julee or xale yi ak jigéen ñi mën nañ liggéeyi góor daal mooy mooy euh, def lu jëriñ yi def lu jëriñ yi mais duur loolu dafay tegtale ne yow la ngaa sànni bële gis nga bële bu xeeb jàpp ne kon li ngay góor mooy def li jëriñ nit ñi kon mën naa ko xaalis dimbale nit ñi def nga xam ne yow sa digganteeg sa borom la loolu moo la war waaye léegi yow jégg nga loolu gën ngaa yaatu sa bëgg-bëgg gën naa yaatu sa ba àgg ci mën a jëriñ beneen mbindeef comme li bàyyi dénkoon ñoom Cheikh ñi dénk leen ko bu mu leen seen seen gàtt bu ngeen mënee jëriñ àddina yëpp sax ngeen jëriñ leen kooku noonu lay noonu lay waxee moo tax ne ngeen liggéey ngir jaamu yàlla yi jëriñ jiw yi ñu jëriñu jaamu yàlla yi ni Cheikh xanaa nga war a liggéey pour yow ci sa bopp nga jëriñu ci sa bopp nga jëriñu liggéey pour nga mën a ci. góor ñi ndax Cheikh Umar Fouti radiyallahu anhu mu ne koo xam ne ni amuloo benn liggéey aalatun ala naas ci nit ñi rek nga wékku mu ne kooku min jinsi nisaa ila rijal te ñoom nag bu ñuy wax euh, bàyyi danay wax comme ni ñuy wax ñoom ne góor wala jigéen fekk ñoom euh, euh, góor. man shagalahu al-mawjudu an al-ma'dumi fa huwa min ar-rijal képp koo xam ne li xam wala soxlaa bu lis li amul li xam mooy la li xam mooy yàlla koo xam ne yàlla la soxlaa bu lis leneen dul yàlla tudd yàlla la soxlaa bu lis tudd leneen mooy yàlla mu ne ci góor ñi nga bokk ku ne leen soxlaa bu lis tudd yàlla rek mu ne ci jigéen ñi nga bokk boobu jigéen yi ñaar ñu góor lay wax kon jigéen mën naa tàggewu ci beneen yàlla bi tàggewu ci tudd yàlla sàmmonte tudd yàlla tabaraka wa taala ba wax ne fa kun ma annaasi naasina jalaala mawlaahum kama yakunu ahadukum ma asalaam melal ak nit ñi nga xam ne dañoo fàtte màggaay yàlla tabaraka wa taala fàtte màggaay yàlla mooy waral julli jot léegi teew la ne mooy waral yittewoo leneen mu ne melal maanaam ak ñi nga ne dañoo sàggane yàlla tabaaraka wa na mel ni daal li nit ki mel ak lay duub xam lay duub kenn du ko liggéey ku feebar léeg-léeg rek soxla biiram bi moo koy waaye kenn du ko dëkku ndax ku ko doon dëkkoo a ñëw sax jotaay yi nga xam ne jotaay yi doolee koy gëm yàlla la maanaam kon ñi nga xam ne dañoo fàtte yàlla sa xaritoog ñoom bu mu maanaam melal ni ñoom saa nag ñoom da nga ko daroor rek dox rek baxasee dugg taxi kaw la mu dugg taxi jëm kaw la mënoo ci dara dugg avion mu dugg avion mënoo waaye booy ànd ak bul ànd may koo xam ne itteem dana góorloo sa itte jëmee ko ci loolu buy sëriñ boobooy sëriñ bi lay jëriñ bi boobooy mbokki ndax Baay wax na ne kuy àndoo man yastaf minkum muridan aw muradan falyektafi bis saadiqin فإن صحبة من لا تعلق له بالشيخ يقطع المريد ويعوق المراد képp kuy àndoo mu ne na nga doyloo ci àndoo bi sawaun yow ab sëriñ nga wala ab ab taalibe nga wala ab sëriñ ndax koo ci mën a ki ngay ànd ak kenn du ci mën a jëriñ lu may koo xam ne nii dafa dëgg. moo tax yàlla wax yaa ayyuhaa llaziina aamanu taqullaaha wa kuunu ma'a saadiqiin na ngeen ragal yàlla te ngeen ànd ak way dëgg boo àndeeg sëriñ boo xam ne liggéeyam mu ci yàlla dëggu pour mu wàll la ko ba nga bëgg ko dana jafe ndax yëf yi yëf ne. ànd ak ñoom dana la góorloo ci ànd ak sëriñ bi ci yàlla ndax boo ànd ak ku ci tayal bu tooli sëriñ bi sax mooy eh, man suma tool pareegul yow sa tool pareegul ngay dugg ci ay yii nangam nangam bu ko defee loolu dafay wàññi sëriñ si la bàyyoon boo njëkkee bi nga xam ne nii yàlla tax boo paree rek bi nga xam ne sa bakkan bi moo yëpp dëggu daf koy jëriñ bàyyi ñi nga xamee ne noonu la digalee nekk muy àndoo muy taalibe na mel na dem am ak ku mel noonu noonu la waxee ne ci sëriñ si amul benn soxla ci ay taalibe sëriñ si la wax nag waxul nga xam ne ñi dajale mbooloo ak ñi xam ne dañoo jóg pour nit ñi pour moom seet ku dëgg ku nangam maanaam ku mën affaire rek moom la soxla waaw léeg sax ñi dëggu ñi dañuy yàq business waaw ñu dégg ñu ne yàq gis waaye sëriñ dëgg la mu ne muraad cheikh sadiq mu ne bëgg-bëgg yi sëriñ si maanaam ñi ñu nangu ci seen i taalibe yi mooy ñu dëggu rek ndax ñoom rek mu taal leen wéraset ñoom rek ñoom ñoo mën a doon mu jugee ci sëriñ ànd ak sëriñ nag euh, dëggoo mu ngi mel ni euh, sëriñ bi góor-góorlu ci góor gi sonn. dafay mel ni koo xam ne yaa ngi leen di eh, di di di di ji ci àll boo xam ne nii eh, eh, dara du ko tawal te dara du ko roose bu déggoo nag moom dégg déggoo déggoo mën na laa baas taalibe bi ba nga xam ne taalibe woowu dana àgg ci lépp ngir yàlla comme ni ko bàyyi jàngalee ci barke ziyaare yi nga xam ne dafa ñëwoon ñëw ziyaare si ni mu ñëw ziyaare si ñoom ñu ñëw pour sàcc si sëriñ bañ ziyaare si am doomam yoo xam ne dafa feebar mu am kóolu teel lool ziyaara ngir yàlla tabaraka wa taala ndax xam na ne kuy ziyaara ngir yàlla yàlla daf lay bëgg ndax loolu xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale waa ji nag ba mu gisee ñiy ziyaare mu ne ñii kon ay xarit yàlla lañ kon ay xarit yàlla lañ man daal ñoom buñ uh, raxasoo rek danaa jël seen uh, raxasit yi jox ko sama doom bi nga xam ne dafa feebar ndax yàlla faj ko ci raxas mu jël raxasit bi jox ko doom bi nga xam ne nii dafa feebar yàlla doom ji mu ñëw di leen ko gërëm nag ñoom ñu doon waxal seen bopp kon dëggu ko waa moom eggee na ñii bañ àgg ci ba mu leen waxalee boppam ba mu leen waxalee li mu def ak karaama bi ko yàlla may ngir ñoom ngir barkee dëggoom rek moom ñoom ci lañ door a wane ne ñu def ziyaara ngir yàlla taxawoon na jóg ñu dañoo ñëwoon pour sàcc waaye comme ziyaara ngir yàlla nii la baaxee kon daal ñun ci ñu ngi tuub dellu incha allah tabaraka wa taala sëriñ ba dafa xam ne ku ziyaare ngir yàlla ah, yàlla def lay bëgg luy tegtale loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis ji ngër imaam muslim solo na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waaye dafa gën mu jëm ci dëgg ak malaaka boo xam ne ñi daf koo dar ci yoonam ne ko ayna turiidu mu ne ko uriidu axandi fi haadihi qaryati damay dem ci dëkk bëre dama fa am mbokk bu may dem ziyaare malaaka mi laaj ko ci melow nit la laaj ko ne ko ëllëg alayhi alayhi min ni'matin tarudduha ndax da ngaa am xaalis ci moom dafa am business boobu booy yokk foofu noonu mu ne ko déedéet dama ko bëgg rek ngir yàlla mu ne ko maa ngi ne man yonentam yàlla laa ci yow yàlla moo ma ne moom yàlla bëgg na la ngir sa bopp bi nga xam ne da nga koo bëgg ngir moom yàlla nag rek dana ko ubbil bunt yiw yëpp ndax ci lay dem ba nga xam ne nekk ay loxoom nekk ay bëtam nekk ay tàggam ah, bu ko laajee mu jox ko bu ko musloo mu musal ko loolu mbëggeel ak yàlla daf koy may jaam te ziyaare dafay àggale jaam bi ci mbëggeel googu rawatina ziyaare boo xam ne amul sikk ne ziyaare Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu la te duñ ñëwee it duñ lee pen waaye danañ fi dégg benn waxam boo xam ne lépp mu ngi delloowaat rek ci alquran ak sunnatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax na ay taalibeem ne ñun suñ ittee duul itteewoo ay xarbaax ndax xarbaax yi xarbaax yi yàlla daf koy defal jaamam am na ñoo xam ne ci seen dayo mu defal leen ay xarbaax am na ñoo xam ne ay baxaal yi lañ sax ñoo xam ne ñun sax ay nit ay dox lañ ànd ñoom seen xel yàlla may leen ay xar yoo xam ne dañ koy protéger seen bopp waaye xar baax yi naka jekk góor ñi dañoo gis ne ku ma mooy dafa mel ni mooy tàngal yi yoon yi rek tàngal rek la nga xam ne ñaare xale bi commencé moom lañ koy neexalee waaye boo boo yaree xale bi doo xàmmee lu baax ak lu ñaare doo ko neexal mooy commencé ci yoon wi léeg-léeg nga gis yoo xam ne nii da nga dem ba ba sori dootoo gis yu mel noonu nga foog ne man léegi nii mbaalu affaire yi dafa euh, baax fekk tey bi daf laa gis ne yow màgg nga mun ngaa dem loolu la Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu wax ne alladi yara aw yura lahu laysa bi afdala mimman lam yara aw yura la ki nga xam ne dafay gis mbaa ñu koy gisal gën gisul gisaluñ ko mu ne ñaar sax ci gisul gisaluñ ko mooy gën gële ndax dafa mel ni kooku ay maqaamaam mu ngi aju ci leer ak xol li nga xam ne moom ci lañ commencé woon muy iman billahi tabaraka wa taala muy taqwallahi muy salaaxul qalbi sell xol bi nga xam ne Cheikh Ibrahim radiallahu anhu wax na ne bu ko yàlla joxoon ndigal ci soppandiku te ñëpp xam nañ ne yàlla jox na ko ndigal ci soppandiku wax na ko feneen te xasani بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تسويد waaye du looloo ko tax a jóg moo tax mu ne taalibe bi bu ma yàlla joxoon ndigal ci soppaliku danaa ekkati sama itte ci soppaliku walis ci dara lu may defar xol yi nga xam ne bi sallallahu alayhi wa sallam wax na li an yahdi allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min mu baax moo tax ñu gis ñu yaa beneen riwaaya di wax ne xayru mina dunya defar ci yow benn nit bu baax moo gën moo gën moo gën alal ci àddina yëpp bàyyi nee ci nafsin tamaaratu bi suuf eh, mooñ ko yóbbu ko mu àgg ci lawaama danaa commencé di ceeb nangam di bëgg nangam te loolu ci barkeeg coogaaleeg euh, nit yàlla yi la euh, buy ruus di ñëw ci yow ñoom sax ñu ngi dara ci ñoom du ko màgg ndax sa bluetooth nga am léegi nii mën nga fee may léegi téléphone yi connect yu yu yu yu on yëpp mu dem ci seen yos te yow lan leen may noonu dara wàññeeku ci te léeg-léeg nga may leen ko te yow mi ko may puusam rek teg yow ngay dem nii rek mu ñëw ci moom loolu mooy li góor yàlla yi dox ne ku dëggu ci benn xaal ci yàlla mu wër ak yow buy toogaal ak yow buy toogaal ak yow du mucc ci loolu da nga gis kuy ree di ree di ree di ree ba ngay ree taxaw yoo xamul lu gis kuy jooy di jooy di jooy di jooy ba nga commencé di jooy te xamoo kii ni muy jooy da nga gis ku bëgg yàlla di topp yàlla di teet di tere yi di bëgg euh, euh, niru góor yàlla yi yow tim ba nga bëgg loolu moom ba ci musique di wax ne jotaay boobu nga xam ne loolu la ñuy pour fiyaa illa quwwatul adwaala kafaa bu ci dara nekk toon lu may lu may doolee rek kon mu doy maanaam yi nga xam ne xaal boobu ñoom moom yi rek la ndax xol wax ne lu mu ci xol boo xam ne lu mu ci nit ki boo xam ne bu xéwalee lépp xéwal bu yàqoo lépp yàqu. صلاة الله ثم السلام فطرها